asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen émission bi diisoo ngir aaru euh, fii ci rajo Oxygène 103.4 Samba Dialemba Badji moo nekk ci micro bi di leen présenté seen ñaar fukk ak benneel épisode bi seen xarit Kodou Loum dina dellu si waat ñaari ay bis diisoo ngir aaru émission théâtre radiophonique la. Euh, ñi ci waxtaanee mbirum Covid 19 ak euh, ñàkk yi maanaam. Euh, vaccin yi euh, mu ngi amee nag altine bu jot diggante six heures ba sept ci ngoon ñu koy tegaat dimanche onze heures ba midi euh, ki leen ko may mooy Africa Check ànd ci ak Theatre for a Change ci ndimbalu kuréel gi di Google News Initiative ni ñu koy defee nag saa su ne am nañu gan ci émission bi muy docteur Mamadou Ndiaye médecin spécialiste en santé publique moom sax docteur Mamadou Ndiaye Euh, mas nañ ko euh, dalal ci émission bi dinañ dellu si waat nag yaatal waxtaan wi ak moom waaye laata loolu nañu waxtaan ci temu euh, tey bi ñu jagleel ko ñi nga xamante ni ba tey ñoom nanguwuñu dem ñàkku ji muy laaj bis bi sax ci loolu lay lay nekk ñuy laaj lan lañu mën a wax ñi nga xamante ni dañuy bañ a ñàkku ji wala it lan la ñu war def ngir ñu mën a nangu dem euh, ñàkku ji waaye mën ngeen commencé kon tontu ci suñu page Facebook euh, di page Facebook Africa Check euh, te su fekkee ci am ngeen ay nit yu bañ a ñàkku ci mbirum Covid 19 mën ngeen ñu nag wax nag ngeen di jëflante ak nit ñooñu. mën nañu dem nag seeti ñoom moodu ba xam ci lu ñu nekk xam naa sax ñu bari ci yéen. xam ngeen histoire Modou waaye ma fàttali leen tuut ci histoire bi Modou ab fecckat la mu naroon nag ànd ak waa troubam ñu dem États-Unis def fa tournée waaye moom euh, ba mu demee ambassade joxuñu ko visa ndax dañ ko laaj vaccin Covid moom defu ko moom Modou nee na moom gëmul euh, Covid 19 ndax euh, moom pour moom feebar bi amul te it bañ Euh, ñàkku ndax nee na vaccin yi euh, baaxul kon euh, nañu dem déglu épisode tey bi ba pare ñu ubbi antenne bi waxtaan ak yenn auditeurs yi ma fàttali nag su ngeen bëggee bokk da ngeen di envoyer message sunu whatsapp ci numéro bi 77 424 94 73 su ko defee ñu woo leen ngeen mën a dugg ci émission bi joxee seen xalaat te it waxtaan ak acteurs yi waaye.

salaamaaleykum docteur. maaleykum salaam. yaa ngi si jàmm. ça va Bigué. ça va naka liggéey bi. ñu ngi nii rek malade yi di xaw a bëri tuuti mais ça va. Euh, maa la wóolu woon. pour que ñu mën a waxtaan man ak yow. ci mbirum coronavirus. ndaxte gis nañ ni depuis boobu ba tey. ñu ngi def ay sensibilisation. di waxtaan ak askan wi. mais daal dama gis ni ba tey dafa des. léegi dama bëggoon ñu mën a dem ci quartier bi waxtaan ak nit yi pour mën leen proposer à chaque personne bu nekk mu dem jël vaccin bi pour mu mën leen aax ci coronavirus loolu moo taxoon ma woolu woon la tey. maa ngi rafetlu bu baax ci sa idée bii nga am. li nga wax dëgg la te depuis coronavirus bi commencé ba léegi ñoo ngi def sensibilisation. moo tax idée boobu ngay wax dama ci am contentement bu baax a baax a baax a baax comme boobu ba léegi ñoo ngi naan leen ñu ñëw si poste de santé yi ñëw vacciné wu d'accorduñ li ma gisoon mooy ñu dem fekki leen ci gox-goxaan yi vacciné leen ndax koñ ba ku ne xam ne ne ay personnes vulnérables kese ñoo fa bëri boobu ba léegi ñooñu nanguwuñu vacciné wu ñu demoon seeti leen moo gën man idée boobu laa gisoon rafetlu naa sa xalaat parce que noonu la sax il faut que nga mën a dugg ci biir askan wi dugg ci biir kër yi mën a waxtaan ak ñoom boo ko defee nga mën a am ku nekk idéem lan la xalaat ci vaccin yi ba pare nga soog koo mën a vacciner parce que tamit nañ waxante dëgg nekkul da ngay ñëw rek di vacciner nit ki par la force donc il faut ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser leen wax leen njëriñu vaccin bi lan la ba pare ku nekk dafa war a mën a jël vaccin bi pour mën a aar boppam aar tamit askanam. lii daal buñ ko yàggal. su ma sañoon comme tey man je suis disponible nañ dem waxtaan ak ñoom proposer leen vaccin yi loolu daal buñ ko yàggal docteur man su ma sañoon tey tey nañ dem proposer leen ko. amul benn problème léegi danga may may tuuti ma xool yenn malade yi après bu ko defee ma mën a ñëw ñu dem. merci docteur kontaan naa bu baax maa ngi lay xaar fii. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ay Awa Cissé. kon yow yow dong yaa ñëw. Ah, yow soxna Fanta. tuur bu nga xam ni bés bu yàlla sàkk tardé rekk tuuti ma ñibbi. asalaamaaleykum. maaleykum salaam wa yéen. Eh, nam naa leen. Ah. maa ngi leen ci ñàmm. doom day nag gëj naa laa gis. tay raar nga de. maa alamaan leen ma. dinañ la alamaan. yow gis nga soxna Fanta Mariam mii dañ koo war a wax dëgg moom daal day doxi soxlaam ba heure bu ko neexee rek mu door di ñëw tuur. ay waay bu leen wax noonu damaa xëyoon am fu ma ne loolu rek moo tax ma tànday. yow tamit nag awa si sa bàyyil noonu rek mu sedd xam nga ne Mariam mii moos moom ci ay mbirum boppam rek lay nekk aduna mu solo. salaamaaleykum sama tante yi namm naa leen. maaleykum salaam. maaleykum salaam. ah yéen géej naa leen gis nag tante. kooku de biige la. waa biige yow sama denne tuuti géej naa laa gis. yow géej ga kër ga de. tante nekk ci kërti kërti dëkk bi di dawaka daanu rek. loolu dong moo tax ngeen géej ma gis. ñàkk jot nag moom baax na moom. gis nga soxna Fanta sax. jot moo amul. xale mii dañ koy ñaanal rek yàlla ñu yokk ay fanam maa ngi leen di santaat bu baax di leen gërëm. tey nag dama ñëwoon continuer waat liggéey bi. ba ma xëyee nag laa dem hôpital mi. te xam ngeen docteur Diop. Ah, waaw docteur Diop. gune gu baax a ngoog waay. billaay tey ba ma xëyee nag moo ma woolu woon. ma dem hôpital ba waxtaan ak moom. mu ne naa ko jàppale ci sensibilisation ak wàllum vaccination bi. te suñu koñ bi dafa bëri ay personnes vulnérables maanaam ñi nga xam ne dañoo wéradi daf cee bëri te ñooñu nag dañoo war a dem vacciné wu moo taxoon ma ne nag xaar ma ñëw seet si leen ndax yow tante Fanta ku ne xam ne ne sama mag Cheikh wérul te Cheikh dafa waroon dem vacciné wu Moodu dafa war a dem vacciné wu sama raq yi ba ci yow mi dangaa war a dem vacciné wu moo taxoon ma bëggoon yéen ñi ñëpp ngeen jàppale ma ci liggéey bi ndax ñaari loxo mooy tax ko tubay dëgg la moo tax ngeen war ma jàppale ci liggéey bi incha allah rabbi dinañ la jàppale bu baax jëf biige ni nga waxee rek noonu la bu ñu jugee fii dinañ ci waxtaan ñun daal suñu biir jërëjëf. amul menn problème lii ngeen mu ne loolu nag ñàppal na sotti na ñun ñii ñun ñooy doo te porte dem dem def sensibilisation bi loolu amul benn problème comme ànd ngeen ak man d'accord ak man amul benn problème man maa ngi dellu ci liggéey bi maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf waay ba beneen waaw kay jërëjëf waay jërëjëf nuyu ma sa yaay bu baax. yow soxna Fanta soxna Mariam waaye jommi woo leen ci gone gii yow gone gi ñu ne la baax nga yaru nga rek gone gi ñëw taxaw fii naan ñu ay da ngeen a war a ñàkku jeet yow Fanta nag gone gi nag yow la gën a yeb war naa dugg naan la seex wéeru la lii man de xaw ma kan ñàkku jiw ma tey ñàkku jiw ma suba ak yii ma ci dégg yëpp waaye ñàkku jiw ma. non <laughs> Cissé xale bi daal. ay retard sax la ma def xale bii moo sob dëgg dëgg dëgg yow ñu ne la nokkas bi neex na rek nga ne dolli ci Dakar yow bu ñuy vacciné wu ak bu ñu vacciné wul yow sa yoon ba nga am cop gu toll ne fekk ñu fii da nag naan eh, ma dal kii dama ko naroon a mbéj ma baax lu ma gën mooy muy wanax wanax yi xale mi moom xanaa xamul ne naka bi daa tàng xamul loolu ak miilam bi yow xale mi nee na nee de waxuma ko nag muy ñaar onze na ma sama tante yi nexel nag waxuma seex yow kii mu yemoo ngu doom ko de kii ñaang na seex ne kii moo gën xam ne vaccin bi nuñ ko la ñun ñoo koy laal ne vaccin bi dégg Ndiakandia bu ñu neen téléphone teg ko seen kii affaire yi da ciy tegu. da ciy tegu man da ciy tegu man de maa ko gis man. am ka nga xamante ne ba mu vacciné ba pare ba mu jëlee téléphone bi da ko ci teg téléphone bi collé yow soxna Fanta man li ma ci gën a sax metti mooy yow mi mu ñëw naan la ay. seex moomu te yow affaire yi war na laa am lu mu la jàngal Baye Ndiaye vacciné wu fi. vaccination bu metti ba nga xamante ne. lu ne daj nañ ko ci. lu ne rek daj nañ ko ci xale bi daal nenn na ma nenn na ma daal. yow doo te man ba mu vacciné woo fa pare maa dajeeg Mbaye Ndiaye fee ca pharmacie ba Mbaye Ndiaye naan koŋko koŋko koŋko koŋko koŋko. ah kon kay mu noonu nag ba sama miir mi ni metti. kama jàkkaarloolu kër fii la ñàkku ji ñëw tànk ba néewee néewi néewi ba ca kaw ñu xëy mu laal loxo ba. fa mu ñàkkoo loxo ba néewi keroog daf maa fëgg. maa ko may karité waaw man li may wax lu ko gundal lu ko ŋaat na ñu continuer suñu natt balaa ñu ko yow da ngay dem vacciné wu soxna Fanta man mii xalaatuma ko man mii vacciné wu ma yow soxna Awa da ngay vacciné wu xalaatuma ko vaccin mii naa nañ ko génnee ci tuur mi te continuer suñu natt mooy dëgg nag loolooy dëgg nag Cissé. waaye yow soxna Fanta xanaa naaj bee tàng ngay dox di ma fel nii ah yow daa soxna Fanta yow mii. ragal nga tàngoor. man de yow xoolal gisuma la woon sax. waa lii lan la moom. yow de lii dama xaw a jagadi ma daal di dem ci hôpital bi. doon xool sama yaram daal. docteur bi jox ma lii. <laughs> nee na da xale bu ndaw lay waxal. yow de yaa ngi mel ne. ku yore sa liir rek di wax ak moom. gis nga lii jànguma de. waaye maa ko gis ci sama jëkkër. ba mu vacciné woo. lii la yore woon. këyit bi mu ngi nii maa ko denc. nit buy wax day wax lu ko wóor. ban ñàkku. ak ban vacciné wu man dinaa wax ak yéen li may wax ak yéen ca tuur ba walbatiku ah naan damay ñakku ji di leen ba ak la ma wax këroog biige yëpp nga taxaw yaa yey di wax nag di cang nag yow la nga wax ca tuur ba yëpp jàpp ko biige mi yekk ko koo yekk ko yu lu mel ne katame yaa albati ko eh, yee yaay eh, yee nga yolleeku ndànk dem di ñàqu ji gis nga soxna Fanta nit du gaawtu fa ma ne woon ca vaccin ya falaane ba tey dama ne leen woon bu kenn ñakku bul teg ni nag lii nii ay carnet ñàkkul la yow yaa ñemee yàlla te rëy fit am fit carnet bi maa ko gis carnet bii laa gis laa la wax mënoo koo weddi yow nag xam naa ne yow moom tey laa la bàyyi yow tey yow daal ndekete ñu ne la yàllaa ngi nii nga ne du yàlla yow yaa am fit eh eh, eh baax na man bul wax ak man de baax na baax na soxla Fanta man nag maa moom sama yaram bu ma neexee ñakku loolu yow sa yoon néew ci. yaa moom sa yaram kay loolu dafa leer. waaye nga wax dëgg gi gis nga ñàkku gii lu war la. te lu baax la it moo tax ma def ko dama ne nag nga may man ak sama jàmm yow ñàkku yi yaa ko moom wala kan moo ko moom. waaw kay nag. xaayaan ku dégg séeréer. yaa ngi doo ko wax. li nga mujj nii mënoon nga koo njëkkee nag yaayam booyam. billaay mënoon nga koo njëkke dafa leer yaa moom sa bopp lu la neex nga def. waaye nag kàccee ci boppam moo ci war woon a am. soxna Fanta wax ji sax nag dafa doy aw ma dara nag lu ma lay expliquer ci sama wàllum wér-gi-yaram ndax yaa ngi may dégg. lii de su ma ko waxee Marème du ko sax gëm. loolu moom leer na ma naañ. yaag Marème yëpp laa ci yemale. amuma kenn ku ma ciy expliquer dara. dégg nga maam te nag sax naaj bi dafa tàng. ndax mënu maa ñàkk ba pare boole ko wax ju bëri. mère ni nga dugg see am na doole tey de lu xew baa jàmm. <laughs> waaye yaay da nga fas sa kanam nii yaay ñàngam nga de lu xew. Eh? soxna aw la xew xanaa soxna Awa Cissé. foofu xeexu meer ngay am foofu kooku moom moom damay génn bàyyi leen ngeen raaj. Moodu waxuma ak yow waxuma ak yow Moodu soxna Awa Cissé war ñu nekk ci tuur ba bii nga ñëw fa. wax waxu vaccin yi bi bii nga demee ñu bañ ci vaccin yi ne kenn si wu fu tey kenn vacciné wu fi si ëllëg moom moom sax moo ëppoon ci li muy wax man daal may dem marché rek dajeeg moom mu génne ci hôpital bi vacciné loolu rafet na. eh dalal teew tey kat ndax kii li mu wax loo moo la yoon te moo leen war. yéen nag man pour man yow lu nekk moo xew ndekete yow waxu vaccin moo tax ngay mer yow kay sama tante Awa Cissé li mu def noonu la dafa wax a dem vacciné wu. yéen ñii ñëpp da ngeen war a dem vacciné wu. kon yaay yow vaccin moo tax. nga lokk Kébémer ak Ngaye. moo Moodu génnal ci samay wax Moodu génnal ci samay wax. yow papa yow moo sa deuxième dose mi ngi lay xaar. teppi yaay papa bàyyi leen li ngeen di sonn te amul benn njëriñ moytu leen vaccin yii nii baax na. moo Moodu respecté ma taw respecté sa yaay. man de waxam yi sax damaa bëgg mu génn ma ci ba ma set wicc moom yabaateem googu na ko yemale ci boppam te bu ma ci boole comme que kenn mënu leen wax lu ngeen dégg maa ngi dem sax sama yoon man xam naa ne moom fii sama jàmm mënu fee am comme yéen moom ay corona fii corona fee vaccin fii vaccin fële man damay xëy dem yendu ji sama kër copain dem bàyyi leen fii nii moom ak seen kër comme kenn mënu leen wax lu ngeen dégg jërëjëf euh, yéen a ngi déglu kon diisoo ngir aaru fii ci rajo oxygène 103.4 épisode bi ngeen di déglu di ñaari fukk ak benneel bi acteurs yi ñooy Cheikh Ndiaye xadifal Fall Diaw Mame Mbodj Guèye Seynabou Diop Yacine Diop ak euh, Mouhamadou Diol Euh, technicien bi ko nafar nag di fallu Sow ki ko jàllale ci rajo bi di Emmanuel Mendy ñu koy woowe DJ Las Kumba la moo saytu liggéey bi ba mu jàppandal ma fàttali leen nag euh, laaju bis bi euh, lan la ñu mën a wax ci ñii di bañ a dem ñàkku ji wala bokk lan lañu ñu war a def ngir ñoom ñu nangu dem ñàkku ji jël vaccin contre Covid ma leen di fàttali nag ni mën ngeen dugg ci émission bi Euh, pour dugg rek euh, da ngeen di envoyé message suñu whatsapp ci numéro bi 77 424 94 73 bu ngeen ko defee euh, ñu daal di leen woo ngeen mën a dugg ci émission bi ñu may xamal sax ni am nañu auditeur bu njëkk bu nekk ci ligne bi mbokk mi maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Cheikh Moussa Fatma Ndiaye. ah Cheikh Massey Fatma Ndiaye yow moom daanaka ci kër gi nga bokk eh, <laughs> maa ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu li ngay eh, dugg ci émission bi nga xamante ne ñooy eh, faral di bokk ci émission bi. man laaj lañ njëkk lan nga xalaat ci épisode bi nga déglu tey. Massey kon ñu koy defee rek ci émission bi yow moom. Euh, xam nga nu muy demee waaye ma ma ma ma fàttali rek pour auditeurs ñuy déglu te bëgg dugg ci émission bi euh, mooy euh, boo wootee rek mën nga dugg ci pièce bi waxtaan ak acteurs yi nga daal di leen xelal di leen dimbali rawatina ci ñi nga xamante ne ñi mel ni Moodu nga xamante ñoom nee nañu gëmuñu feebar bi te luñ leen wax rek ñu gëm ko ba xam ndax soo duggee mën nga waxtaan ak ñoom jëm leen xelal tey nag fan nga bëgg duggee. ci biir famille bi euh, bi maire bi yegg see ci kër gi fekk fa njaboot bi di leen wax loolu. mooy seen bu mujj bi maanaam. bi mu ñu bàyyi la nga dugg. kooku noonu sax bu bëggee mën na duggaat ci émission bi <laughs> ñu waxtaan ak moom waaw <laughs> kon kon euh, ni ñu koy defee rek xam ngeen ni euh, auditeur bu bëgg a dugg ci pièce bi dañuy bàyyi acteurs yi tegaat pièce bi nga xamante ni fa nga bëgg a dugg. Euh, xam nga yow nu muy demee euh, bu ñu yeggee fi nga bëgg a dugg rek nga wax stop ñu bàyyi la nga waxtaan ki nga bëgg a waxtaanal kon yow defe naa euh, maire bi nga bëgg waxtaanal wala Modou ñoom ñoom ñëpp waaw kon nañu dem ñu déglu épisode bi ci ci boobu eh waaye maire tey sa dugg si am na doole de <laughs> sama yaa nee na daa parce que moom waaw soxna Fanta aw la xewa waay xanaa soxna Awa Cissé ah dañoo daje woon ca tur ba waxante fa lañ fay waxante ba ba pare ba ñëpp daani moom sax moo ëppoon ci li mu wax ah mu tourné man daal maay dem marché rek mu gis ko mu génne ci ci ci biir ah, hôpital bi vacciné wu ba pare loolu rafet na. oui eh. yow kon sa wax ju bëri ji yëpp après vaccin bi tax ngay wax ni sama tante kay loolu mu def noonu la dafa wax a dem vacciné wu ñun ñii ñëpp dañoo wax a dem jël vaccin bi loolu kay dafa jeex ngay mel. waaye dafa waxanteeg ñun waxu waxu nit waxanteeg ñun ba ñu tënk. ci affaire vaccin yi kon warul albati ko dugg ci biir euh, hôpital bi di vaccin wu ba ma gis ko maa ko bi waaw euh, Cheikh Massey nee na stop kon Massey mun nga dugg waxtaan ak euh, suñu gars yi asalaamaaleykum maaleykum salaam ah siyaar naa leen Baye ak si yaay booy ak ñoom Modou yéen waaw man ñu ngi lay fay ñu ngi bu baax a baax waaw waaw waaw Modou Modou yow nam raw maa raw yaa si jàmm way naka répétition yi waaw ñu ngi ci kawam di taqale rek alhamdulilah léegi nag Modou man dama bëggoon waxtaan ak yéen tuuti rek. di ko li sa yaay indi nouvelle bi nii si kër gi affaire vaccin yi. waaw xam nga moom nee dafa waxtaane ak ay mbokk moromam ba noppi après am kenn ki nga xam ne wëggati ko dem vacciné jiwu. waaw ku trahir mafia bi dem yoxosu dem vacciné wu waaw. <laughs> trahir wul de mais Modou man yow laa bëgg sax gën a waxal parce que xam yow ambassadeur bi parce que yow artiste nga. waaw nest pas te artiste nag da nga war a nekk ki nga xam ne. da nga war a maanaam da nga war a prévenir nit waxtaan ak nit euh, gën leen ñaax ci surtout ñu dem ñu vacciné wu. saa yi wuy ma wuy ma Cheikh Moussa non bul eggali man digaluma kenn mu dem di vacciné wu. ndax la ndax vaccin bi yow yaa gën a xam ne wóorul. si wóor na. non wóorul li ñu wax ci vaccin bi yëpp nii man naa digal nit muy dem di jëli ci vaccin bi. d' accord mais Modou ñu ci wax ñëpp déggoo benn docteur bu wax lu wute ak li beneen docteur wax ñi ciy wax ñëpp duñu ay docteur maanaam ay nit ñuy toog la rek di njortu rek maanaam di yaakaar rek di wax di yaakaar di wax te ñooñu nag euh, déglu leen moom mooy pure erreur dafa mel ni gis nga comme kaaka nit ki nga xam ni dafa dafa dafa jàng benn mbir ba maîtriser ko bu ñu waree wax ci mbir moomu moom la ñu war a déglu pour man nag jàpp naa ne nag kën comme yow sa artiste sa art bi nga nekk nii yow monsieur man ñi nga xamante ñoom ñooy liggéey waaw laa dégg ñu ni même bu fekkee ne jël nga vaccin bi ba pare. terewul feebar bi ne nañu mën na la dalaat. ci ñoom li gëm man na gëw ma ne ah, sax ay feebaru coronavirus am na man dama jàpp ne siburu la comme ni siburu di ñëwee di dem a dellu. waaw xam nga tamit dafa mel ni tamit ki nga xam ne dafa siburu woon daaw jéeg. waaw bu faju ba wér yéen tamit bu feebar bi coronavirus la ak genre affaire yooyu noonu. nañu wax ne siburu la rek. Modou ak lu ci mënti am daal vaccin bi pour mu protéger ñu la parce que xam nga lu tax non vaccin bi moom amul njëriñ sa bu fekkee ne koy jël ba pare feebar bi la dalaat moom vaccin bi amul njëriñ non mais bu lay dalaat ba na a sonal loolu mooy li ci gën a neex li ci gën ci gën a neex waaw mooy bu la dalaatee du la sonal comme bu fekkee mosoo ko jël mu dal la waa léegi vaccin bi ma laaj la lan mooy njëriñ bi lan mooy njëriñu vaccin bi quoi man loolu laa bëgg a xam mooy mu jéem la a jéem a xeex ak yow ak jéem a xeex ak virus yi nga xam ne bu ñëwee nu mu la waroon daanelee moom mu fexe fexe ba du la daanelee noonu. Modou tu es un ambassadeur fexeel ba porter drapeau bi wax ak sa famille bi wax sa waa troupe wax ak sa waa koñ parce que ñu jëli ji vaccin bi mooy lu gën a mais man li ma jaaxal mooy sam fii la jëloon vaccin bi. waaw bi mu jëlee vaccin bi après feebar bu métti moo ko ci sonaloon. Ah? waaw waaw parce que. eh eh, eh waxal say waxu ah. ma aw gëmu dara <laughs> doo mës a gëm gis kii li mu la wax nii déglu ah. a jërëjëf Masseye ñu ngi rafetlu ci euh, dugg bi nga dugg ci émission bi jéem a xelal moodu euh, ma bëggoon xam nag ci noo gisee waxtaan bi ak Modou euh, donte Modou ci boppam moom dëgër na bopp waaye. waxtaan wi no no ko gisee. waa neex na tam mais man dama jàpp ni Modou. dëgër na bopp mais dafa amul les bonnes informations pour man loolu rek. su mhm. amee information yu baax yi am ñu koy gën wax. Euh, profondeur chose moom mën na mën na mën na changer affaire jërëjëf kon nañu wéy di fexe ba Modou jot ci information yu baax yi euh, kon di déglu diisoo ngir aaru di ngeen ci mën a am information yu baax te it euh, mën ngeen def comme Massey Ndiaye auditeur bi fi jógee léegi mun ngeen dugg ci émission bi di ngeen di def rek mooy envoyé message suñu numéro WhatsApp 77 424 94 73 su ngeen ko defee ñu daal di leen woo ngeen dugg ci émission bi euh, bu ngeen ci duggee mën ngeen wax seen xalaat ci euh, mbir mi te it euh, waxtaan ak acteurs yi rawatina ñi nga xamante ne ñoo nekk ci épisode yi te ñoom nee nañu gëmuñu feebar bi di Covid 19 wala ñi. Euh, tasaare ay xibaar yoo xamante ne du dëgg dañ koy dëgg rek daal di ko euh, tasaare euh, kon bu ngeen duggee ngeen mën a waxtaan ak ñoom waxtaan ak Moodu jéemu delloo si xelam bu baax kon ñu fekki suñu gan bi di docteur Mamadou njaay di médecin spécialiste en santé publique docteur maa ngi lay nuyu di dalal jàmm ci émission bi. ah leen di nuyu ci seen émission bu am njëriñ bi ngeen def. waaw may fàttali nag docteur yow mos nañu la fi dalal sax ñuy waxtaane ci ci mbirum Covid bi euh, euh, ci ci épisode u tey bi nag euh, liñ ci jublu mooy waxtaanee ñi nga xamante ne ba tey ñoom daal dañuy bañ a dem ñàkku ji maanaam seen xel dalul ci wàllu vaccin yi rawatina sunu xarit bi di Modou nekk ci pièce bi moom sax moom nee na gëmul feebar bi. xëj na balaa ñu dugg gën a sori ci ci ci waxtaan bi mën nañu xam tey jii euh, fan lañu ñu toll ci mbirum vaccin yi ci réew mi. waaw xam nga boo leen fàttalikoo ñu ko indi ci weeru février ci deux mille euh, vingt et waaw ci boobu lañ commencé ci suñu réew euh, commencé ñett te boobu tamit mbas mi nekkoon na ci solo li ñuy wax ñaareeli vague gis nañu ni liñ njëkkoon am sax dafa jeex ba ñu góorgóorloo ba amaat ay ñàkk euh, dafa méngóog bi naat ñetteelu vague bi te boobu tam métti woon na mais gisoon nañu ni euh, liñ wax ci euh, ci vaccin yi bëri woon na ci loo xam ni wax dëgg neex yàlla xam-xam mayewu ko mais yàqoon na ay xel mais donte loolu amoon na gisoon nañ ni ba nga xam ne sax vaccin yi dafa jeex kon day wane ni rek nii xanaa kay ragal moom mooy puus nit ñi ñu dem ñàkku ji mujj ko gëm donc gëm nañ ko léegi dafa am jamono ji nekk ay la yëwén ak xe euh, xarale yi nga xam ne tas ci àdduna ku nekk war na ñëw wax ci ki ci am xam-xam ak ki ci xam-xam mais ñekk moom yàgg na am ci àdduna ñu koy jëfandikoo pour xeex mbas bii tamit li nga xam si moo ci xaw a bees mooy gaawtu bi ñu gaawtu pour am li nga xam ni mooy ñàkk yi ak coow li nga xam ni mujj na cee am léegi moo tax ni euh, bi nga xamee ni dem na ba nga xam ni tamit lii di mbas mi dellu na ginnaaw gis nañ ni tamit nit ñi xawaat nañu toogaat mu xaw a sooxewaat donc euh, loolu daal mooy fi ñu toll nii ci jamono yi. docteur léegi euh, nit loolu sax mooy sunu sunu sunu laaju ay bis bi fu mu toll nii ñi mel nii Euh, sama xarit Modou nekk ci PS bi euh, wala yaayam ñi nga xamante ne ñoom nee nañ bëgg ñu dem ñàkku ji genre nit yooyu lan lañ leen mën a wax ngir ñaax leen ñu dem ñàkku ji. waaw euh, li leen mën a wax mooy d'abord il faut ñu yi jamono ñu nekk wax dëgg neex yàlla li ak li ñu wax ci ñàkk yëpp leen d'abord ba pare ñu nangul leen seen tiitaange waaw ñoom ay doomu aadama moom bu gisee loo xam ne daf ko jaaxal wala xam ko. war nañoo nangu ni war naa mën a tiit wante comme olof ni ñu koy waxee aussi ko fekk nit ku baax du gindee ko ci mbedd euh, ñoom ñooñu nga xam ni sax daanaka am lu ragal donc bu ñu feebaroon tam ci docteur yi la ñuy dem ñi leen di leen di jox ñàkk yi ci ñooñu la dem bu fekkee dañoo feebar wóolu leen te ñoo tamit boo leen wóolu lu nekk lañ lay wala ñu jox la ko nga jël te doo laaj sax lan lañ la jox léegi xanaa kay di leen déglu ne leen lan moo tax lan mooy seen tiitaange ci ñàkk yi bu leen dégloo ba pare ñu wax leen ni xel xalaatul ci ki nga xam ni saa yoo feebaree wala boo jàqee ci moom ngay dem mu jox la li nga war a jël nga jël ko nga jël ko ba pare gis ci am tan ba ci war a mën a dox say soxla kooku tamit wax dëgg neex yàlla xanaa amul lenn loo xam ne moom mun na ko jël di la ko jox mu lay lor donc ñun li ñu gis mooy te te tamit li ci nekk moom mooy wane woon na ko sax ak luñ mën ci wax bi ñàkk yi commencé am gisoon nañu ni. ñi nga xam ne ñoo nekk Sowétas boo ci compté lu tolloog fukki nit juróom juróom-ñaari wala juróom-ñett yi ñàkkul woon donc ay la yéwén ñàkk yi wane nañ am na njariñ ci lu gën a tuuti tuuti mooy mu musal ci feebar feebar bi mu mën la dañ lay yóbbu Sowétas sa bakkan ban cero donc ñooñu dañ lay daal seen xel léegi nag di leen déglu aussi bu fekkee ni am na leneen loo xam ne wax nañ ko ci ci ñàkk yi ñu teg seen loxo loo xam ni dina leen. jéem a euh, euh, dindi ci li nga xam ne moom la nekkoon. jërëjëf ale gis nga am na ñoo xam ni comme ni ma ko waxoon ci njëlbeen bi ñu bari bañoon nañ ko wante bañ gisee ni mbas mi xaw na fort ñoom ñëpp daw si nañ ñu ñàkku euh, loolu daal mooy li nga xam ne moom moo mais il faut que tamit ñu bañ leen di xas wala ñu leen wax wax lu ñaaw wala ñu leen di buntu xatal mais di leen déglu di leen di jokkoo ak ñoom di waxtaan ak ñoom ba keroog seen xel di dellusi seen xel mën a dal ci jox ñu mën ko nangu. jërëjëf docteur jërëjëf dañu dellu si ci yow ñu jéem jël ay ay auditeurs euh, ma fàttali nag yéen a ngi déglu euh, diisoo ngir aaru euh, émission bi ñu jagleel ko mbirum mbas mi ak vaccin yi bu ngeen ci bëggee dugg nag li ngeen war a def mooy yomb na da ngeen di rek envoyé message suñu numéro whatsapp muy 77 424 94 73. Euh, su ngeen ko defee ñu daal leen woo ngeen dugg euh, ci émission bi euh, wax seen xalaat te it waxtaan ak comédiens yi nekk ci studio bi ma fàttali nag laaju ay ay ay bis bi mooy lan lañu ñu war a wax ñi nga xamante ni ñoom ba tey dañoo ragal wala dañoo bañ a dem ñàkku ji wala book lan la ñu war a def ngir ñaax leen ñu dem ñàkku ji mooy euh, laaju ay bis bi ngeen mën a euh, tontu mun ngeen euh, tàmbale tontu ci sunu page Facebook bu Africa Check ngeen duggee ci Facebook tapé Africa Check di ngeen jot suñu page ngeen tontu ba xam ngeen jox ñu seen seen xalaat ci émission bi te it kon ku bëgg a dugg rek ni ma ko waxee ma fàttali leen numéro bi da ngeen di envoyé numéro bi. Euh, message euh, ci whatsapp bi numéro bi 77 424 94 73 bu ko defee ñun ñu woo leen ngeen dugg ci émission bi dugg ci émission bi waxtaan ak comédiens yi da ngeen ñuy wax rek ci ban partie pièce ngeen bugg dugg su ngeen fa duggee euh, ñu acteurs yi nekk ci studio bi joué waat suñu yeggee ci ngeen fi ngeen bëgg a dugg da ngeen wax stop ngeen waxee stop ñu bàyyi leen ngeen dugg ngeen waxtaan ak comédiens yi Euh, jëm leen dimbali ci mbir mi euh, kon am nañu auditeur bu bu nekk ci ligne bi asalaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ah, mbokk mi noo tudd. waa maa ngi tudd Ousmane Niang di woote Californie. Ousmane Niang defe naa de yow jot nga fi dugg de. waaw mos naa si dugg nag wax dëgg yàlla. waaw ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay gërëm bu baax ci ni ngay bokk ci émission bi di di dugg di jéem Euh, xelal euh, suñu mbokk yi nekk ci pièce bi tey euh, xelal askan wi auditeurs yi ñuy déglu kon Ousmane bu fekkee jot nga déglu émission bi ñu bëggoon a xam rek fan nga nga nga bëgg a duggee waxtaan ak suñu comédiens yi. waaw man bëggoon naa intervenir ci jotaayu soxna yi. waaw mooy fi nga xam ne soxna Awa ak soxna Fanta. Euh, daje nañ bay waxtaan parce que xam nga jigéen moom mooy àdduna. waaw waaw waaw. waaw daal laa bëggoon a intervenir. maanaam fu ñuy waxtaan ba ne du ñu dem wax ñàkku ji daal. voilà voilà foofu daal bëggoon naa ci sànni sama xalaat tuuti suñ ko mënee dégluwaat. voilà léegi kon euh, ma fàttaliwaat rek yow jot ngaa dugg ci émission bi xëj na sax xam nga. Euh, naka ngay def pour ñu jox la euh, micro bi waaye dama lay fàttali comme ça euh, ñiy déglu tam xam ñoom bu ñu wootee naka la ñuy def maanaam acteur yaa ngi fii kon soxna yi dañuy ñëwaat ci partie boobu rek seen bi nga bi la intéressé ñu nekk seen waxtaan bu ñu yeggee nag ci fi nga xamante ne yow foofu nga bëgg a dugg nga wax stop soo waxee stop rek ñu bàyyi la nga dugg waxtaan ak ñoom kon ñu dema ah. incha allah ayca waa yow soxna yow xale bii de yow la gën a yab may wax mu naan la Baye Ndiaye a ngi nii demoon na vacciné wu ji ah yow na Fanta bii ge mii <laughs> man de ñaar de naa la ko waxal xale bi ay reetaan sax la ma jàpp kii moo sob dëgg-dëgg may wax mu naan ñii ñii kii na ma de man na xala mu ñu ngeen man naa am man man nii lañ koy maayee rek ñeme protocole ñeme protocole rek kooku xam nga xanaa xamul na ndax mi sax na kontaan waxuma mu naan ñu nañ nga mag na man xam nga mii mii war nañoo wax ak yow waaye yow mii sax yaa war a gën a wax ak moom kii daal xam naa siñ na Cheikh waxuma mu naan Cheikh dafa feebar Cheikh naa war a ma jëli vaccin bi. man dama waxul loolu yow Baye Ndiaye ñàkkoom war na la yee tëdd feebar ñaata fan. yow na xanaa ba Baye Ndiaye demee vacciné man moom ma maa ngi sant ak moom. ñu naan comme xam-xam Ousmane ma fàttali na soo bëggee dugg da ngay wax stop soo waxul stop. man de leen bàyyi nga dugg de. man de leen naa la ci xamal xoolal. vacciné jiwu ma tey déw ma suba yow da ngay dem man. man man ci naw ma ne. man de vacciné jiwu ma. vacciné wu ma ko sax yéene. kii daal day jaay day jaayee baate rek. du ma ko dara. waaw kon Ousmane. Euh, waaw jigéen ñi laa bëggoon ñaax. waa demal dugg mun nga dugg mun nga dugg ñu ngi lay déglu. waaw man jigéen ñi rek laa bëggoon ñaax. waaw ñoom lay nekk nu Ousmane. waaw bëggoon waxtaan ak yéen ndax yéenay àdduna. dëgg la Ousmane. yéen nga xam ne yéenay daje ci tuur yi di daje marché yi eh, di ci mbootaay yi ngénte yi dëkk yi. Mm-hmm. Eh, nga xam ne yéenay yor drapeau yi. lépp loo xam ne àdduna bi soxal na ko muy eh, wàllu wér-gu-yaram. ci yéen lay njëkk ci yéen lay mujj. waaye du ci mag yi de. war nañ seen taxawaay war na gën a dëgër ba ngeen mën a sàlloo di ñàkku ngir mën a aar seen bopp aar seen njaboot waaye aar ñi nga xam ne ñoom di nekkal. waaye Ousmane. mag yi maa ñaay na xaa ñël. feebar ko ay fan. ñun kay mag yi xalaatuñ ko ñël. yow Baye ngay wax sama dëkkandoo bi ko jëloon tànk ba néewi nag ñun daal Ousmane mën nañu def yëpp nag waaye vaccin yii moom. xalaatuñ ko ah soxna Fatou xalaatuñ ko duñ ko def sax nag ndax am na yenn yi nga xamante ne nag moom def ko moom ci risque la vaccin yi indiwuñ ko ci neen defaruñ ko ci neen pour mu aar nit ñi dong moo moo ko tax a jóg hmm. nit ku nekk bëgg na aaru ndax tey buñ la waxoon ndax ñu pikiir la feebar da ngay bañ nit ku nekk bëggul ñu pikiir ko mu feebar waaye nekk ñu pikiir ko pour mu faju pour mu hmm. aaru tamit te seen taxawaay en tant que jigéen mooy yéen seen wàll boobu ngeen nangu vacciné ba pare surtout si njaboot bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di dajal. jërëjëf Ousmane jërëjëf Ousmane loo loo loo noo gisee waxtaan bi ak soxna yi. waa waxtaan bi am na solo bëggoon rek ñaax jigéen ñi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy kër yi ndax li ñuy génn bëri na li ñuy dajee bëri ñu gën a mën a sàlloo ñaq yi ak di déglu ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk kër docteur su ko defee seen i kàddu dina mën a yegg foo xam ne nit ñi dinañ mën lépp loo xam ne lu leen di aar la ñu mun ci topp ndax jigéen nag su duggee ci rek lépp day day nekk loo xam ne lu lu jaar yoon la. kon jërë jërëjëf euh, Ousmane. jërëjëf euh, jërëjëf Ousmane ñu ngi lay gërëm bu baax moo fàttali nag yéen ñi déglu euh, man ngeen def ni Ousmane rek dugg ci émission bi li ngeen di def rek mooy envoyé message suñu numéro WhatsApp 77 424 94 73. su ngeen ko defee ñun ñu composé seen numéro woo ngeen dugg ci émission bi def comme ni Ousmane Niang def ngeen ànd ak comédiens yi waxtaan ak ñoom xelal leen ma fàttali leen ni yéen a ngi déglu euh, diisoo ngir aaru muy euh, seen émission théâtre radiophonique di amee fii ci rajo Oxygène altine bu jot euh, jàpp 6 heures ci ngoon ba 7 heures ci ngoon ñu koy tegaat dimanche 11 heures ba midi Euh, émission bi nag ku leen ko mooy Africa Check ànd ci ak Theatre for a Change ci ndimbalu kuréel gi di Google News Initiative théâtre radiophonique bi nag di soo ngir aaru luñ ci waxtaanee mooy mbirum euh, mbasum Covid 19 ak euh, vaccin yi ñu daal samp émission bi ngir xelal ni ñi fexe leen ba ñu moytu xibaar yi nga xamante ni dëgg ñu ñuy tasaare rawatina ñu koy tasaare ci whatsapp wala tiktok wala facebook bu ngeen ñëwee ci émission bi ñu ci euh, waxtaane euh, te it euh, émission bi mën ngeen ci bokk li ngeen di def rek mooy daal di envoyé message suñu numéro whatsapp 77 424 94 73 bu ngeen ko defee ngeen dugg ci émission bi Euh, waxtaan ak comédiens yi nekk fii ci studio en direct euh, may fàttali nag laaju ay bis bi euh, nga xamante ne mooy lan lañu ñu war a def wala lan la ñu mën a wax ñi nga xamante ne ba tey ñoom gëmuñu vaccin yi te bëgguñu dem vacciné wu naka la def ngir xelal leen kon ñu dem rek jël benn auditrice laata ñuy fekkiwaat suñu invité Euh, asalaamaaleykum. waaw noo tudd. man maa ngi tudd Soxna Marie Odile Diouf. Marie Odile euh, ma ngi dalal euh, jàmm ci émission bi. ma fàttali li ñuy waxtaanee tey mooy mbirum nit ñi nga xamante ne ñoom ba tey seen xel dalul ci vaccin yi ba tax na dañoo bañ a dem vacciné wu. laaj mu njëkk ma lay laaj ndax déglu nga suñu épisode tey bi. waa déglu naa ko. kon nuñ koy defee rek euh, bu fekkee danga nga bëgg dugg ci biir pièce bi. nga waxtaan ak comédien yi. fan nga bëgg duggee nga waxtaan ak ñoom jëm leen xelal tuuti. man ca jotaayu jigéen ñi laa bëggoon duggee. aha fi ñuy waxtaan ba ne ñoom ñu dem ñàkku ji. ko waaw kon kon ñoom ñu ngi fii li ñuy def rek euh, comme ma expliqué la li ñuy def euh, ñoom ñu ngi studio bi kon scène bi dañ koy joué waat en direct buñ ko joué bu ñu yeggee ci partie bi nga xamante ne yow foofu nga bëgg a dugg rek nga wax stop euh, foog nga wax stop nag ma xam ni da ngaa bëgg a dugg boo stop rek ñu bàyyi la nga dugg nag nga waxtaan ak ñoom jéem leen xelal ba xam ndax dinañu changer d'avis nangu dem vacciné wu am déet kon nañu dem. ah ca soxna yi kon euh, ñu jotaay bi na door. waaye yow soxna Fanta. yow béykat mii rek kii yabaatiwul yow nag moom la ci gën a yab may wax mu naan la Baye Ndiaye mi ngi nii vacciné wu yow ba Baye Ndiaye vacciné woo yow coono ki nga ci daj danga koo xam. <laughs> man de soxna Awa kii de ay reetaan sax la ma def. béykat moo sob dëgg-dëgg kii lan moo ci yoonam suñu vacciné <laughs> kii de. dama ko naroon a tëgg mbéj rek maam lu may seet moom sax xamul ne dëkk bi naa sàng ak piinam waaw moom xanaa xamul ne keroog ma maa ñaay loolu kay man maa la ko mën euh, dafa mel ni Marie wax na stop Marie Odile mhm. kon dugal ci jotaay bi nga waxtaan ak ñoom kon euh, am ngeen gan yow de Marie dama yaakaar ni da nga déglu waxu biige bii uh-huh. biige ñëw fii di ñu wax waxu ay vacciné wu dem leen ngeen vacciné wu man de tey damaa jommi man. waaw jommi loolu waru la dal de. Ah, parce que man ah. euh, sànq lu so lu sëñ Ousmane wax laay waxaat ndax jigéen mooy àdduna. jigéen moo moo war a jottali message bu bu wér te dëggu moo tax tey ñu taamu leen. waaye du ci vaccin bi ne. waaw ci vaccin bi la. ah vaccin bi xam ne maa ñaan kenn moom ko ñële. dañoo wax passé côté pharmacie bi mu naan koko kok koko kok koko kok fan lañ cay ay semaine feebar nga naan ñu ñu nañ dem jëli vaccin bi donc kay xalaatuñ ko man maa ci xam dara man mii nga xamante ne man mii nga xamante ne man la doon fanaanoon bu du ma nelaw guddi gi yëpp damay fanaanee uh-huh. xoole ba bërsëg ndax feebar bu métti foofu nag laa bëggoon waxtaan ak yéen ndax yéen ñaar ñëpp ay jigéen ngeen te yéen ëmb ngeen imbi ngeen jël ngeen seen doom yóbbu hôpital pour ñu ñàkk ko mu ngeen mu toppatoo ñàkk bi hmm? vaccination yi nga xam ne moom la xale yi di jël te seetlu ngeen ni xale bi balaa muy dem ngeen koy yóbbu mu dem jël ko ba ca rendez-vous ba da ngeen koy jox garab mu naan ah? boo leen eggee tamit bu ko ñàkkee ba pare parce que effet secondaire yooyu muy dal xale yi nga xam ne ñoo tout tànk yooyu yi nga xam ne ñoom la ñu doon ñàkk bu ñu juddoo mën na la dal tamit ca boo jëlee vaccin Euh, coronavirus ça dépend ci sa organisme nu muy réagir mën na mën na metti mën na la bañ a def dara moo tax nag ñu lay wax ni boo ñàkkoo tamit ba nga jël loo xam ne mën na seddal sa yaram. ñàkk bi nag xanaa ngeen essayé rek ngeen. mu nekkee defu leen dara après man ma mën mm. si ne wu xool. waaye moonu nag de soxna soxna yow mi mari ñun ñëpp nag bu ñuy dem rek ñooy demandoo. ah, ah soxna Fanta mi na essayé. bi rey sa daw. jërëjëf jërëjëf kon Marie Odile Diouf ñu ngi lay gërëm bu baax a baax balaa ma lay bàyyi rek eh, bëgg a xam eh, noo gisee waxtaan wi est-ce que yaakaar nga ni eh, li nga leen wax dina tax ñu xaw a changer d'avis tuuti. waaw xanaa sant yàlla rek ndax ay jigéen laa ko waxal te ñoom dañuy ëmb imbi. xam nañ ne bu ñuy yóbbu seen njaboot pour ñu dem vacciner leen il faut ñun jox leen garab pour ñu naan te bu ñu ñëwee itam dinañ leen jox garab loolu la demee wàllu vaccin wu coronavirus. jërëjëf boo ko boo loo xam ne day da koy kii ba réaction bi tamit du du. du metti lool jërëjëf Marie Odile Diouf. Euh, intervention bi am na solo bu baax ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ñi ñaax nag auditeurs yi. Euh, ngeen def ni moom mun ngeen dugg waxtaan. ak sunu mbokk yi fii euh, ngir xelal leen ba delloo ci seen xel ñu may xamal ni euh, docteur Ndiaye euh, ñëwaat na docteur ma bëgg la laaj rek tey jii ñu seetlu ni mbirum Covid bi kaay daanaka wàññeeku na wala boog nu mu meloon ci ay weer wee ñu génn melatu ko est-ce que loolu du tax nit ñi teggi seen tànk yaakaar ni mbas mi dafa jeex ñu bañ a dem vacciné wu. loolu moom lu am la xam nga waxoon naa leen ne bi ñu tollee ci euh, ci ñetteelu vague bi euh, nit ñi dañoo daw ñoom ñëpp daw pour jël ci ñàkk yi te ñàkk yi sax jamono yooyu demul dañoo mujj sax jël ay bërëb def ko ci ci gën a foo xam ne du kër docteur pour nit ñi mën a gën a jege pour ñëw ñàkk yi euh, ci loolu après amoon nañu ay ñàkk yu gën a bari ci loo xam dañ ko dënd wala ñu may ñëw mais loolu tamit dafa daje. mbas mi ci boppam dellu ginnaaw lu bari te loolu moom gis nañ ko ci doomu aadama bu demee ba nga xam ni li nga xam ni moo ko waroon tiital ko dafay tegi tànkam mais nag li ñu mën wax moom mooy ay la yéen mbas mi moom mi ngi ba léegi ñàkk yaa fi est-ce que dañuy xaar ba yëf yi ñaanuñu ko yàlla mu jugaat amaat beneen variant wala nit ñi commencé at ñëw li gën a li ñuy xelal nit ñi daal mooy jamono yi nit ñi dem ñàkk yi. te ba am na am nañu xanaa docteur am na hmm. lu ma a bëgg ñaan nag xam nga. waaw euh, yow euh, euh, bii mooy defe naa deuxième fois ñu lay invité. kon xaw nga xam principe émission bi tuuti. d'habitude auditeurs yi lañ koy defloo waaye nag puisque tey yàlla dogal ni yow docteur nga te mën nga xelal nit ñi ñu dem ñàkku ji. ñu bëggoon nga dugg ci pièce bi waxtaan ak suñu ñetti soxna yi nga xamante ne fi ñu toog di waxtaanee ne ñoom du ñu dem ñàkku ji ñu buggoon nag nga dugg ci pièce bi xelal leen pour ñu nangu dem ñàkku ji euh, loolu mooy principe émission bi léegi lu may def rek mooy ñoom dañuy jewaat scène bi nga xamante ne fa la ñuy waxtaane loolu euh, waaw léegi nga identifier ci biir scène bi bu ñu yeggee fenn foo xamante ne yaakaar nga ni mën nga fa dugg xelal leen da ngay wax stop waxee stop ñu bàyyi la nga dugg ci pièce bi nga waxtaan ak ñoom mun nañ def loolu. aywa bisimilah. waaw ayca kon ndaw nañ nañu commencé jotaay ji soxna yi dem leen. waa yow soxna Fanta yow di xale bi yow la ci gën a yàq may wax mu naan la Baye Ndiaye ñàkku ji woon na kon da ngeen a war a ñàkku ji yow Baye Ndiaye nga xam ne ba mu ñàkkoo coono gi ci daj yow danga nga koo gisul. man de kii ay reetaan sax la ma def. kii moo sob dëgg-dëgg moom lan moo ci yoonam sax. dama ko noroon a ngàdd rek. am lu may seet xanaa gisoo ko fiinam tàngaayam man kii damaa nañu may jàmm moo gën a xam ne ne vaccin bi duñ ko ñël bi yaay ko maka maay ñaay ñële man ma dañee moom ci watu pharmacie ma mu naan kokokok kokokok kokokok waay waay waay maa ci xam dara man mi doon fanaan ak moom dama daan tëddoog suba gi guddi gi ba fajar du nelaw guddi du nelaw bëccëg yow sama dëkkandoo bi nag nga xam ni dafa ñakku ji woon tànk ba néewi néewi néewi ba nga xam ni ci guddi gi. stop stop stop stop. waaw docteur nee stop kon docteur euh, ñu bàyyi la ak soxna yi nga waxtaan ak ñoom ba xam. docteur waaw xam nga ñàkk moom même ñooñu di wax ku ci nekk xam naa du guleet nga dem ñàkku ci ñoom xëy na gis nañu ni ñàkk wax dëgg neex yàlla du tolloog ñeent fukki at ñi ngi ñàkk ci ci ci réew mi. Euh, amul benn euh, koo xam ni amoon nga doom nga indi ko ñu indi ñu ñàkk sa doom te gisoo ci moom euh, ay jafe-jafe yu ndaw laata ñu koy ñàkk loolu dem na ba nga xam ni sax jigéen ñi bu ñuy indi seen doom yi dañuy gànnaayoo ay peru parasamol ndax dañuy gis ni bu ñu ñàkkee xale yi ba pare seen yaram dana xaw a tàng mais tàng bi du yàgg te bu ko joxee parasamol bi mu deñ léegi ba ñu nekkee xale yi lan lañ gis moom mooy xale yi amatuñu ngas lafa lañu lafa feebar yu bari yoo xam ni doon na leen faagagal lu bëri ci ñoom mu ci seen bakkan loolu dañ na léegi ci biir kii Covid dem moom moo ñoom ñoo yem moo tax ñu amal kuréel goo xam ni euh, moom day topp képp koo xam ni ñàkku nga ba nga ñàkkoo nga am ci jafe-jafe ñu xool ba xam ñàkk yi moo ko waral wala dafa liñ naan tombé dafa waral ay gaaf waaye donc mais li ñu mën a jàpp mooy du ñun rek waa Sénégal ñun la ñu ñàkk. waaye donc ñun wat nañu juróom-ñeent juróom-ñaari milliards doomu aadama ci kaw suuf te boo xoolee yeneen réew yi ñoo ñu ñoom li ñuy ñàkk xam nga ñàkk bu fekkoon ni su ñu ñàkk nga am jafe-jafe wala mu indi ay wala mu indi jafe-jafe ba sa bakkan di ci wala nga ci am ay ay ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu loolu ñu ko def. waaye docteur docteur dafa am ni soxna si dafa am lu la bëgg a laaj. koy déglu man gis naa ku ku vacciné wu. ñu ñaan téléphone bi teg ko ci loxo ma loxo mi collé euh, euh, téléphone bi collé wu ci loxo mi man loolu gis naa ko. waaw xam nga boo dee gis naa ko man mënu ma ko weddi. Ah, parce que dama jàpp ni téléphone bi collé wu ci loxo kay ñeen bëgg ñun yor vaccin moom nekk ko suñu yaram yi dafa wóor. waaw xam nga. Euh, xam nga xam nga bu mais moom bu fekkee ni moom la collé ci yaram xam moom ak ñeneen ñi rek est waaye docteur man tamit ma laaj la leen. man tamit ma laaj la. Hmm. vaccin yooyu ngay wax ak yii. Hmm. ah nee nañu hmm. bokkul ndax vaccin yi nee nañ dañ lay programmer maanaam piis lañu def sa biir yaram bi foo ne ñu ñu ñu gis la. ah yooyu tamit docteur tamit dañ ko war xoolaat nag. waa xoolaat nañ ko soxna si est ce que mën nga maa déglu tuuti. ayca ayca docteur. xam nga yow li ma doon yow bu fi mu ne ñaanu ma ko yàlla sa njaboot wala yow wala fekkee da ngeen di wopp wala ngeen am jafe ci ñan ngeen di dem ñun ngeen di ñëw. waaw loolu moom dëgg waaw ñun liñ leen liñ leen yàgg liñ leen yàgg jox bu leen ko joxee jug ngeen dox dox seen soxla wala wér ngeen. ah dëgg la moom. léegi ñun xel xalaatul ñuy jël loo xam ni daf leen di lor ñu leen ko jox. ah waaw waaw loolu léegi te te waxoon naa fi ni am na wax yu ñu wax yu bari yoo xam ne boo xoolee ba ci biir loolu lekkul nee naa la war nañu mat juróom-ñaar milliards ay doomu aadama ci kaw loolu ñu naan bu fekkee ne bu ñu la njëkkee bi day day kone loolu amul. docteur fekkee docteur ñu ngi lay gërëm bu baax a baax waxtaan wi neex na waaye kon defe naa foog ñu indiwaat la ci émission bi ñu wéyal waxtaan wi ak suñu auditeurs yi ak suñu mbokk yi nekk ci pièce bi kon euh, euh, docteur Mamadou Ndiaye maa ngi lay gërëm bu baax a baax di fàttali euh, yow médecin nga spécialiste en santé publique ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci ni nga nangoo nekk ci ñu ganu tey kon ñu wéyal émission bi rek. ñu euh, wéyal émission bi fàttali leen euh, disso ngir aaru fii ci rajo point 103.4 euh, auditeurs yi mën ngeen dugg da ngeen di envoyer message suñu WhatsApp rek 77 424 94 73 su ko defee ngeen dugg comme ki nekk ci ligne bi ñu ngi lay nuyu salaamaaleykum. maaleykum waaw soxna si noo tudd. maa ngi tudd Badiane Matisar dëkk Yaraax. Euh, Maty Sarr bàjjenu gox. waaw mu sonn nekk sunu invité ci émission bi te di yenn saa yi ngay woote di bokk ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm ci ni nga duggee ci émission bi euh, ñu bëggoon a xam nag fan nga bëgg duggee ci pièce bi euh, waxtaan ak sunu mbokk yi nekk ci pièce bi. waaw fi ma laal na ko mais maa ngi fi soxna fi mu ne muy vacciné ba ñëw ba dajeeg beneen aha waaw kon euh, nañu nañu dem ñu teg pièce bi commencé rek euh, ñoom ñu joué waat ko en direct kon euh, defe naa xam nga ni mbir di demee bu ñu yeggee fi nga bëgg a dugg exactement rek nga wax stop ñu bàyyi la nga dugg. d'accord waaw ay ayca. may fel. ay soxna Awa man gisuma la sax. man de maa ngi waaxu rek naaj bi dafa tàng nag. dëgg la kay. waa <laughs> soxna Awa lii moom lan la. lii de xam nga fan yii sama yaram bi daa xaw a jagat bi ma demoon ci docteur bi mu daal may jox lii loolu kese la. ma ne gis nga lii jàngu ma de waaye maa ko gis ci sama jëkkër man la ko denk waaw kon euh, Mati nee na stop nañu bàyyi mu dugg Aïcha. waaw li may intervenir mooy. pour wax ne nit ku nekk am nga droit dem defi vaccin bi. waaw pour man nëbëtu jaru ko. pour man nëbëtu jaru ko. parce que ku nekk yow yaa xam ya ngay sant ci sa yaram te dañ ne jàngoro ji nañ dem jëli vaccin yi pour ñu aaru te boo jëlee vaccin bi yaa ngi aar sa bopp yaa ngi aar sa njaboot pour man nit ku nekk mat nga responsable nga am nga droit jël vaccin bi amoo droit pour di làkkatu pour lan muy làkkatu ah làkkatuuma déet làkkatuuma sax waaye xam nga ba ñu waxee ñun suñu biir ñoom ñu weddi li gone gi wax man nag ba ma tëddee waxtaan ak sama njëgënaay ma xam ne lii am na solo ma daal di dem vacciné wu ji ndax xalaatoon naa ni bu ma leen ko waxee duñu dem. wax nga wax bi wax nga wax bi bi nga demee nga tëdd nga xalaat sa njegenaay xam ne da war a jël vaccin bi da nga waroon delluwaat ca tur ba waxtaan ak waa tur bi wax leen lii dëgg dëgg gi mooy na ñëpp jël vaccin. yow daal bàjjen bàjjen mati ñu a aaru. bàjjen mati bàjjen mati li nga wax daal dëgg gu wér péng la ndax ba ñu dajaloowee wax suñu wax moom moo gënoon a na rëy làmmiñ di wax ba ñu waxee pare nag ba mu demee bay jëlaat beneen décision waroon naa ñëw toogaat ak ñun waxaat nañu lii ak lii ak lii bu ko defee sax am na nu muy demee sax ñun ñii sax ñu ànd ceeg moom waaye mu dem di yolleeku di vacciné wu loolu fet na eh, eh, eh, warul yolleeku waaye ba nga gisee ni dafay ba dem vacciné wu te xam nga ni jël vaccin bi mooy aar nit ñi waroo ko ci woon sikk waroo ko woon ñaañi da nga waroon fexe def ni moom ngeen fexe na jël ñaar ngeen ànd ak demaat ci tuur ba ngeen joxewaat message bi sensibiliser moom dëgg la. jërëjëf jërëjëf euh, euh, Mati Sarr bàjjenu gox ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ndax waxtaan wi am na solo euh, te mm. li nga leen wax am na solo defe naa ni auditeurs yi déglu tamit jëlee nañ ci njëriñ bu baax a baax a baax kon fii la ñuy yem yéen ci émission bi diisoo ngir aaru fii ci rajo Oxygène 103. point quatre euh, balaa ñu tàggoo nag ñu bàyyi leen suñu comédiens yi tàggoo ak yéen euh, ñoom nag ñu ngi fii ci studio bi ñu dooree ko ak euh, Cheikh Ndiaye. asalaamaaleykum maa ngi tudd Cheikh Ndiaye nekk Moodu ci pièce de théâtre bi. waaw fi. asalaamaaleykum maa ngi tudd Seynabou ci pièce bi. Mame Mbodj Gaye tamit mu ngi fi toog ak ñun. asalaamaaleykum maa ngi tudd Mame Mbodj ma doon joué lu Baye Ndiaye jaraboot ñu jox kaddu gi nag euh, kii di Khady jaw Diaw salaamaaleykum man maa ngi tudd Khady Fall Diaw nekk soxna Fanta ci PS bi Yacine Diop salaamaaleykum man la Yacine Diop maa ngi doon joué ci PS bi euh, Aw Cissé ak euh, docteur Diop ak Mouhamadou Diol maa nekk Cheikh waaw kon ñu leen di gërëm bu baax ñuy gërëmaale Euh, Fallou Sow nga xamante ne moom mooy nafar euh, pièces yi euh, ak sketch yi ñu gërëm Emmanuel Mendy DJ Las nga xamante ne moom mooy tax ñu mën a déglu saa su émission bi ak Kumba sila muy saytu ba lépp jàppandi ba émission bi mën a am Euh, Samba Jalempa Badji ma gërëm sama bopp ndax ma nekk ci <laughs> micro ñu ngi naan ndax maa ngi fàtte lim sama bopp kon maa nekk ci micro bi euh, ñu gërëm auditeurs yépp nga xamante ne ñoo woote ñuy fàttali leen mën ngeen woote bokk ci émission bi ñu gërëm suñu invité bi ñu fàttali nag émission bi mun ngeen ko dégluwaat euh, dimanche diggante 11h ba midi fii ci rajo Oxygène 103.4.